والحمد لله رب العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن شيخنا ومرشدنا ومنقذنا أبي المحامد الشيخ أبي محمد الكنتي وعن خلفائه الأبرار ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد بكي جولي دي نيغي لين دي نويو euh دي لين جيغل سي جوتاي بي اك توغاي بو ياغ بي اك داغ يي نين داغ سيني سوخلا اك سيني ييتي غير وي سي ووتيب شيخ احمد كونتا نيكوي نويو بو باخ ديكو gërëm di ko sant ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni moom lay taxawe fii ci Pikine waaye di ko taxawe ci askanu Kunta waaye di ko taxawe ci tariqatul qadiriya waaye di ko taxawe ci ummatul islamiya yépp ñu ngi koy euh, gërëm di ko sant ci loolu ak taxawaay boobu di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi yàggal ko ci taxawaay bu mel noonu mu di ko taxawe waaye ci ndigalu ay kilifaam te Cheikh Sidi mohammed Kunta nek ca bopp ba waaye ci ndigalu ay kilifaam Cheikh Sidi mukhtar mu baay bu nek ca bopp ba lay mane lolu di ko doxal ci jotay bi ay kilifaam ñi ngi fi waye dañu wax legi jaga ko ne wax ko tagge bu ne am na diw lolo tax waye ay kilifa ñi ngi fi ci ginaawam wacce seen bop lool te mënon na 10 mënoon na toogee place bi mat ko sëkk muy cheikh Mouhamed Kunta mi ngi fi ñu koy wax Ahmed Naar ak cheikh Sidi Mokhtar Kunta mi ngi fi si Ahmed Bamba mi ngi fi ñuy ay kilifaam ak euh, Abdourahman mu bàyyi bu ñu waroon a mën a fees place bi nga xam ni seen place la waaye ñu xam ni bis bi li koy coloré li koy taaral mooy ñoom. ñu wacce seen bopp jël place bi ak daraja ji ak maqama bi jox ko kon donte mom bëgg ko luñ ko forcé la rek waye jikkom damiram conscience am mayu ko sax ñu tek ko fiñ ko tek mu difa fa ci kanamu ay kilifa waye nak ay kilifa am ñoko ko sant ñoko ko forcé mu def ko té loolu dañ koy royé ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax jamono ba nga xamé ni nomé na usama ibnu zeyd mu war a jiite xare bi nga xam ni ñoo waroon a ubbi ji saam yàlla def laata xare booboo départ yonent bi génn na àdduna ba mu génnee àdduna xare ba war a dem ci jamonoy Aboubacar Aboubacar dani li yonent bi defoon du ma ci dindi dara jëlaat Usaama tegaat ko ci bopp armée ba mu nekkoon xale bu ndaw toll ci ay 17 ans jiite ay kilifa ñoom eh, Omar mi ngi woon Eh, eh, eh, soldaar ya bokku ca Alioune ma nga ca Ousmane nga ca même ba ko yonent bi di nommé Aboubacar mu ngi woon ca biir soldaar yooyee mais ñoom ñëpp dañoo nangu woon pour topp ci ginnaaw Usaama mu doon seen kilifa dirise leen kon lislaam nekkul ni ci ay at lañ koy lañuy jiite mbooloo waaye ci mat ko lañuy jiite mbooloo yàlla def na mu mat ko ay kilifaam doyloo ko jël ko teg ko ci kaw ñoom ñu wàcce seen bopp ngir ni tey jii bisam la moom mooy ki nga xam ni moo war a wane ni moom bis bii lii ko ay magam wóoloo mat na ko parce que nit ki tamit bu ñu la wóoloo lañ la wóoloo danga koy mat sëkk waaw nit da dëgër ci li nga xam ni moom lañ la sant danga ci am dëgërte ndax boo yox-yoxee rek doo mën a jiite ay mbooloo yàlla def na moom am na ful la am na yar am na teggin joxe na cër waaye mat na sëkk place bi nga xam ne nii moom la ko ay kilifaam wóoloo ba teg ko ci ndax loolu kat laa uzakki alallaahi ahadan huwa aalamu bikum id anshaakum min al ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum falaa tuzakku anfusakum huwa aalamu bi man ittaqa nekku ni man damay sellal kenn mbaa may setal kenn ca kanam yàlla yàllaa ma gën a xam ki set ak ki sell ak ki ragal waye liñu ñu mën wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaybi xaafidin liñu ñu sédé ci mom ta ay mbokk dekkandom yi mu dëkkal fi sédé ko imam yi wax ko tay ca kamil ba imam bi ñëwaat ci ngon gi jaaraat ci ñoñu fañu jaaroon ta fekkante wuñu woon kon ay wax yu dëggu rek ka mëna daje ta seeni borom yëgoowuñu waaw seeni borom jogo wuñu kon ay wax yu dëggu ñoo mëna daje bu seeni borom jogo wuñu kon Cheikh Ahmed Kunta Sidi yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay ci sa mi mag ndigal yi nga xam ni moo la bàyyi fii yàlla buñ ci gis dara lu leen di rusloo yàlla buñ ci gis dara lu leen di gàccaal yàlla na nga ko mat sëkk yàlla dooleel la ci jàppale la ci ndaw yépp nag war a roy ci yow ndax doon xale teewu la baax doon xale teewu la am jom doon xale teewu la am ful la doon xale teewu la liggéey ngir yëkkati sa askan ndax nit ku nekk kat ambassadeur nga ca fa nga nek julit bu ne ambassadeur l'islam nga ca fa nga nek avant tout ngay nek ambassadeur kunta ngay nek ambassadeur qadriya da nga a nek ambassadeur l'islam kon bo nek ambassadeur l'islam ci gox ba nga nekk dangaa war a wane jikkoy l'islam ci yarba da nga wara war jikkoy l'islam ci fulla ja da nga wara wara jikkoy l'islam ci am jom nga ab julit du bayeku ab julit du noy ndax yonent bi dani al muminul qawi xayrun min al min al mu'min al daif al muminu qawi xayrun min al mu'min al daif julit bu deuguer ci limanam julit bu deuguer ci pastefam julit bu deuguer ci xam-xamam julit bu deuguer ci dooleem mo gën fop ci yàlla julit bi nga xamni dafa bàyyi bopam waaw julit dafa wara deuguer ci côté yépp ba yàlla wax nii wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribatil xayli turhibuuna bihi aduwallahi wa aduwakum yéen jullit ñi bu leen bàyyeeku préparé leen seen bopp yéen jullit ñi waajal seen bopp ci lépp loo xamante ne nii matériel la buy tax noonu lislaam yi man leen a bàyyi ragal leen mais jullit wër ta yàccaaral ba am noonam di ko yàpp préparé leen seen bopp ci xam-xam préparer le sen bopp ci matériel ci ngannaay lepp lo xamanteni ni dina tax senum non ba leen xel ragal leen rek julit bi da wara nek ci loxo julit bu combat avion de guerre bombe atomique ay fital ay lepp lo xamanteni day tax yow sa non bala xel rek jox la cër yow julit bi yalla ne da ko wara préparer waaw da ko wara préparer waye da nga wara préparer sa bop ci walu xam-xam mais da nga wara fexé ba di place ya jëlee décision yi yow jullit bi nga am ko place ba nga mën a am loo defal jullit ñi kon bu ñuy wax ni jullit warta politique wala sëriñ warta politique dañoo xamul waaw parce que politique ci loxo yi xëy na xulafaa yi la nekkoon ñoom ñoo ko yoroon ñoo yoroon nguur yi ñoom ñoo yoroon décision yi yow jullit bi nag boo nekkul fa ñuy décider ñu bàyyi ko ak saay-saay yi rek bu boobaa dinañ la décider ci sa place loola neexul ndax bi mu jarrade xalami ka tuhibbul haqqa haqqan wa tubtilul batila batila so gor gor lo ba jang am xam-xam nek ci disparage ya ñuy jëli jële décision yi yow ci sa big rek man nga réaliser lu ne ci sa big rek man nga def lu ne lo xamanteni da fay jariñ bi leñ bi ci ab simple signature kesse man nga ci def lo xamanteni fa lay l'islam di doxé yëkëti ko ba faaw ci sa big kesse man nga dindi lu ñu narona noté l'islam ci sa big kesse man nga ko dindi ci ci ci lool kon fexe leen am xam-xam bàyyi bokk ca place ya nga xam ne nii dañ fay décider loolu mooy rôle jullit moo tax imaam Alioune dafa wax ni juróom-benn ngi nii ñépp la war waaye ci ci juróom-benn ñii la gën a war juróom-benn ngi nii rafet ci ñépp jikko woo ko waaye ci juróom-benn ñii la gën a rafet ñu jikko woo ko ñu ne ko yooy yàlla mu ni al adlu maandu xasanun lu rafet la ci ñëpp ñëpp war a maan mu ne walakin na fil umarai ahsan waaye ci ñi jiite la gën a rafete suñ la wóoloo jiital la maandu ci yow la gën a rafete mu ne alwarau xasanun fegu téye sa bopp mu ni lu rafet la ñëpp war nañoo maandu ci lu seen yoon nekkul téye seen bopp jub fegu ci la leen yàlla dénk waaye nag fil ulama yi ahsan ci borom xam-xam yi la gën rafete mu ne assaxaa u tabe rafet na baax na ci ñëpp ñëpp a tabe walakin na fil agniyaa ahsan waaye ci borom alal yi la gën a rafete boo tabee te yoroo loo joxe doo munoo joxe mu as sabru xasanun muñ lu rafet la lu baax la ci ñëpp a muñ waaye nag walakinna fil fuqarai ahsan ci ñi ñàkk la gën ay rafete muñ mu ne at tawbatu xasanun di dellu ci sa yàlla heure bu ne di tuub di ra raxas say bàkkaar di jéggalu yàlla foo toll di dellu ci sa borom rafet na ci ñëpp ñëpp a war di tuub fu ñu toll di dellu seen borom mu ne walaa walakinna fi shababi ahsan waaye ci ndaw ñi la gën a rafete waaw mu ne alxayaau xasanun kersa lu rafet la ñëpp a war a am kersa waaw yonent bi dafa wax ni alxayaau min al aw satrul iman waaw waaw kersa genn wàllu ngëm yàlla mooy kersa moo tax ñuy wax naan la xayaa fi diin dañoo déggul diine diine kulluhu xayaa diine yëpp kersa la waaw diine yëpp kersa la innama adraktu min min an-nubuwati al-ula fa ida lam tastahyi fasna ma shi'ta yonent bi nee fekk na fi ci ñi fi jitu won yoni len ci seeni diine ci seeni téere fekk na ñu daan wax ni nit ki bu amul kersa du rus lu ko neex na def kon mune ne haya'u o kersa hasanun lu rafet la ci ñepp mune ne walakin fi nisaa'i ahsan ba ci jigen ñi la gëna a rafete ci jigen la gëna a rafete looloo tax euh, ba nga xamé ni yonent yalla musa tabina deug dëkk boobu wax Madiana dem toog ca pénc ma gis ñaari xale yi jigéen tooge nële bu seen jur gi bëggee ñëw di jaxasoo jur jur yeneen ñu di leen dàq di leen wàññi ba nit ñi wëgg ba tëjaat teen ba dem parce que bu ñu wëggee ba pare dañuy tëj teen ba dem bu fa desiti ndox amee ci mbànd yi ñu wëgg ci bu fa amul du ñu wëgg parce que dañ leen dañ waa dëkk ba dañ leen wax ni ñoom dañoo dañuy rëy rëylu ne duñu jaxasoo ñun te ñoom li ñu bëgg mooy jigéen ñeeg góor ñi jaxasoo ci teen bi tàmbante yi fii cokkaasante yi fii ñoom nag du ñu jaxasoo góor yi ñoom du ñu jaxasoo yi léegi musaa gis leen seetlu lool ci ñoom bi nga xamee ni ñooñu wëgg nañu ba dem mu ñoom ñoom ñu ñëw gisuñu fa desitu ndox ñu jaaxle Moussa ñëw laaj leen lan moo xew waaw mu ni ko ñun dey ci gàttal ndax temps bi jàng may junj du ñu jaxasoo ak ay góor te amuñu doole yëkkati kubéeru teen bi pour mën a wëgg suñu jur gi Moussa leen ko wëggal leen ba pare delluwaat ca place ba fa mu toogoon toog fa ne rabbi inni li ma anzalta ilayya min xayrin faqir tey jii de yow borom bi lépp loo wàcc ci man ci lu baax ci aw yiw rek lu ba lu ma soxla ñooñu ba ñu ñibbee nettali seen papa la xew mu yabal kenn ci ñoom fa jaat ihdahuma tamsi ala istihyaa in gis nga foofu laa toog nee na kenn jóge ci baayam ñëw ci moom ci muusaa di dox doxu kersa sëgg oyofal ay tànkam doxu kersa moom daa war jigéen lan mooy doxu kersa yàlla leeralaat nañ ñu ko ca suratu nuur mu ni walaa yadrib na bi arjulihinna li yoolama maa na min ziinatihinna jigéen buy dox bu muy dëgëral tànkam bu muy dóor tànkam ci suuf di waaxu ngir di yëngal taar yi nga xam ni ñi ngi ko takk ci seen suuf yére pour góor di def attention góor ñi di bàyyi xel ni diw mii kat am na lu ma takk di gees bu rombee ñu gees di xool ko maa yuxfiina min ziinatihinna taar yi ngeen takk làkk ko mu nekk seen suuf yére taar yooyu bu leen dëgëral seen tànk pour bëgg koo déggal ñi ngeen jigéen buy dox doxu kersa su takkee taar bu nekk ci suufu yére kenn du ko dégg wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama maa yuxfiina min ziinatihinna bu leen dox di dóor seen i tànk ngir fesal taar yi nga xam ne nii yeneen ko takk mu nekk seen suufu yére ngeen bëgg koo déggloo ñi ngeen di romb kon loolooy doxu gerte fexe ba li nga jiital ci ay taar ña ngay romb duñu ko dégg jigéen war naa dox ba romb ci mbooloo wala mu romb aw nit te duñu xam romb na fa loolu la ñuy wax doxu kersa kon in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib lu ci jub yàlla la neex lu ci dëng suñu gàtt xam-xam la ngeen jéggal ñu ko ak ñàkk ko waaj léegi la ñu wax fii nii daal il faut nga yëkkati fi bu dee dix minutes jërë ngeen jëf kon ñu teewe ko ay at yu bëree bëree bëri macha allah